conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen di may seen revue de presse dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo Mansour Faye ministre bi ñu dénk wàllum développement communautaire dafa bëri doole wala li mu nekk gorob njiitu réew mi moo tax yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy di ñu xamal naan ñu moom Mansour Faye ci ab boo xam ne dañu ko sa invité woon bi ñu ko laajee ci plainte bi nga xam ne ñoom Guy Marius Sagna daan nañu koy def ca kanamu OFNAC ci lu jëm ci xaalis bi nga xam ne joxoon nañ ko ko ngir xamle nee na waa OFNAC bu ñu ko wooloo du wuy ji te amul lenn loo xam ne moom nee na dina ko leeral comité de suivi force Covid 19 bi nga xam ne moom la général François Ndiaye jiite ndax moom Mansour Faye nee na OFNAC amul benn compétence ngir nag di ko déglu yéen a kaay gi di Sud Quotidien mu xëy di ñu xamal naan ñu Mansour Faye bi ñu ko laajee ci lu jëm ci ñetteelu candidature Macky Sall la mu xamle nee na sénégalais yi nañu noppi xaar conseil constitutionnel ndax moom moo si war a yëy yàbbi di Libération syndicat bi ëmb liggéeykat yi nekk ci ministère bi ñu dénk wàllum commerce ñoom nag mer nañu ba futu lu yëkkul Aminata Assome Diatta dañu ko fàtte ndax dañoo jàpp ne maanaam yëfu yaama neex lay doxalee sa kër ga ak parparloo ak règlement de compte ak lu ko neex mu daal di koy jëfee te loolee baaxul ca kër ga ñoom sax gis nañ ne dafa daal di tabb maanaam nommé fa ab photographe conseiller technique te nag syndicat bi ñoom jàpp nañ ne loolee tegiwul fenn bu paasee loolee lépp ñoom dañoo gis ne Aminata Assome Diatta dañu ko war a dàq ignorant la ba pare xamul lu bëri Vox Populi ñu fekk fa Abbas Fall mi nga xam ne mooy coordonnateur Pastef Dakar moom lu mu yëkkul Macky Sall daf ko fàtte nee na Macky Sall ak taxawaayam ak doxalinam ku ko gis xam ne ñetteelu candidature lay waajal Ousmane Sonko mi nga xam ne moom la ñuy wax ne dafa arrogant nan la lu toll ci juróom-ñaari téeméeri junni nit toppee nit ku arrogant loole yéenuwul maanaam te Macky Sall ci boppam xamul priorité yi nga xam ne maanaam moom la war a def ci réew mi farata ji la Macky Sall xamul ndax train express régional ak BRT ak yu mel noonu maanaam askanu Sénégal soxlaa ko jamono ji du farata farata gi feneen la nekk te Macky Sall parewul ngir organiser élection locale yi ndax xam na ne ñi ànd ak moom jamono ji bëreetuñ ci réew mi laas yéene kaay ñu fekk fa mbiri si la mi nga xam ne ci APR la bokk nekk ci Louga nee na Ousmane Sonko dafay nax askanu senegal réew mi quotidien Assane Samb xëy jël xalimama ne fukki at ak juróom-ñett ginnaaw bi batalo joolaa suuxee amul kenn koo xamante ni moom lañ si jàpp na yow yaa def giraawaali gi amul lenn loo xamante ni askanu Sénégal jàngee nañ ko ci batalo joolaa gi nga xam ne moo suuxoon ci ndox mi gii di Dakar Times mu ñu xamal naan bëri na ay sénégalais yoo xam ne ñoo nga bitim réew daal di créer seen i compte page Facebook ak seen i chaîne di saaga sunu kilifa di nii ak sunu autorité yi te ñi nga xam ne ñoo yor wàllum yoon ci réew mi amuñu ay pexe amuñu ay jumtukaay ngir nag topp leen kon jamono ji jot na sëkk état bu Sénégal daal di signé ay déggoo jàppalante ci lu jëm ci wàllum justice ak waa bitim réew yéenekaay gii di 24 heures cadre yi nga xam ne ñoo bokk ci APR te nekk ca parcelle ñaawlu nañ bu baax a nga xam ne moo am parcelle ñëpp teew nañ fa ba mu des Amadou Ba la mu waroon a doxale nag mooy def ni yeneen ministres yi def dem seen i gox massawu ñi nga xam ne ñoo loru ci mbënd mi Mame Mbaye Niang la mu xamle nee na Amadou Ba su dee dafa am ay ambition ngir nekk njiitum réewum senegal na ko wax génn ci APR dem samp ndëndëm réew mi quotidien ñu fekk fa na Lo wax na ci wàllu mbënd mi ci Sénégal ne na 750 milliards yi nga xam ne moom la ñuy wax ne moom lañ siy dugal loolee mënoon nañ see tabax ab gox boo xam ne képp koo xam ne nga nekk ndox dafay taa ñu daal la fay jël yóbbu la Thierno Lo nee na 2005 ba mu nekk ministre nekkoon membre ci plan Orsec techniciens yi waxoon nañ ko na ko fi nga xamante ni bërëbu ndox la te ay nit dëkk fa foofee solution mënu fa am yéen gi di Source nee na màggalu Tuubaa gi li dal Aïda Diallo neexul ndax nag yi nga xam ne jëndi woon na ko sa Mali am na si yoo xam ne da ko jox xalif général des Mourides mu daal di koy gàntal yenn yi mu jël ko jox ko njabootug Serigne Saliou gi ñu daal di koy gàntal laas yéen kaay nee na Macky Sall tey jii ñoo ngi koy xaarinde sa Tuubaa réew mi quotidien nee na kuréel gi ëmb magistrat yu Sénégal ñoom seen xeex bi jamono jii dañu ko internationaliser maanaam dañu ko yóbbu sa bitim réew ndax ñoom gis nañu ne Souleymane Téliko mi jiite union des de yu Sénégal dañu yàq dërëm maanaam di ko bundaxaatal te ñoom nag nee nañu duñu ko nangu benn yoon moo tax daan nañuy saisir nag union internationale des magistrats ngir ñu yiy yàbbi si yéen kaay gi di source a nee na rapport bi nga xam ne experts yi def nañ ko ci lu jëm ci acte trois de la décentralisation jox nañu ko Macky Sall boole si nag ay recommandations yu bari bari ndax ñoom jàpp nañ ne ay régions yu mag la ñu war a créer supprimer ay communes yu bare bare yoo xamante ne amuñu benn njariñ yéen a kaay gii di stat nee na tey jii dana dalal Arsenal maanaam bu 19 heures jotee Aubameyang dina defante ak Sadio Mané Alfred Gomis mi nga xam ne moo nekkoon Dijon jamono ji am na ab déggoo bu dox digganteem ak waa Rennes ci 14 millions d'euros yéen a kaay gii di sunu lamb Balla Gaye 2 nee na amul benn mbër moo xamante ni daan na koy ñeme ci lamb ji waxaaliwu ma sax Gris Bordeaux mi nga xam ne maanaam mooy taw ab combat ma Aziz nee na Gaston Mbengue amul benn avance boo xam ne jox na ko Balla